ànd tamit ak sëñ am moom mi nga xam ne moo nekk gaarasu daaru ndax yaakaar naa ñooñu ku leen tudd mooy secteur transport bi nekk ci Touba. li tax nag ngi def ko mooy bis bi ngeen ñu dara jaale dafa kawe lool ci ñun moo tax ñu mobiliser ñi nga xam ne ñoo seet transport bi ci Touba bi yëpp ànd ak ñoom ñëw président Pambay mi ngi nii toog président Pam Ndong mi ngi nii toog toog bu ñu limee rek dèjà mel na lim na ñëpp. di leen sant bu baax nag di nuyu sëñ Mara Seck bu baax ndax moom day suñu kilifa ba dara du dara ba tey di siyaare bu baax sëñ Moussa Guèye fi jógee di nuyu aussi tamit sëñ Gàdda Mesere mii ndax comme ni mu ko waxee rek ñoom dañoo nekk nit ñoo xam ni yàlla laa dogal ñu nekk góor yoo xam bañ ànd ak ñun ba tey wax dëgg yàlla lañ xamoon ñoom démb ñoom moom lañ xam ñoom tey muy sëñ Ibrahima Diouf ak ñoom ñëpp. ndax koo xamne ba daru dal gini and fum jëm wala telephone ni la nañ dem ba sa borom bo sëgale ko ba tuwaar kàlla mu toga fi di fàttali ko leen boole won lol nitu gor moko def kon ñi ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal bu baax soppé tamit ñu ngi leen sant bu baaxa baax ndax dañ nan soppé Mara Seck waye bu ñëwee soppé Mara Seck yaakaar na ñun kenn mu dem gëni kenn mu cee génne ndax bis bi ñu def fi Serigne Mara ci mbaaxam ak woyofam moo ñu ko may li ñu ko fanaaneel ba bët set bu doon alal donc du ko def kon ñu ngi koy sant bu baax moom tamit ci loolu di ko jaajëfal xëy na sax waxtu waaye délégation bi àndoon nañ ci Serigne Abibou Lay ak euh, Serigne Baye Baye Lay ak mboolem yi ñu àndal ñëpp rek xëy na bu ñu ko limee dëgg-dëgg xañ na day am euh, nu mu demee ak Serigne Cheikh Sarr bi waaye ñu ngi leen ni xamal ni daal suñu cant moom foo ko takk rek wees na ko waaw sant nañ leen bu baax ndax lii rek ak yéen la mënoon ngeen ko defee feneen amoon ngeen feneen fu ngeen ko defee mais sagal gi ngeen ñu mooy ñëw ngi ci bërëb bi ñu liggéey ngeen def ko fi te bu ngeen ko defoon feneen tamit dañuy taal suñu ay oto dem fekk leen foofu kon bu ngeen ko dee fii ngeen defee suñu kanam ba pare dara jaajëf ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen encouragé bu baax ci loolu a baax dëgg la nag ci mbooloo bu baax waaye nag euh, ñi ngi leen jaajëfal daal di leen wax ne gis nañ cër bi te nangu nañ ko ngi koy ngeen jëf. إلى سوى زغزيننا ولتك بنا الجرمان والقصر يا لنا أبي الأمن من المآياس يا من كفاني درى كل آياسي من علينا بنعمة الخوع وطيبا لنا ومرايا والديار أبي جميل المؤمنين ما يزيد غير فراء ربي إنك المزيد يزيد لنا بشرب العلل والفريع نفيت إبليس ومن والاه بخير أنا قلت لنا يا رياو الحمد لله الذي يصلي على النبي منتقايا مسلي جلا وسلم عليه بالعالم والنبي هو ورايا ويلالين ما سانغم با كولبا ويلالين ما سيخ ما ديبل سانغم با wuy jooyle leen ma Seex Madiba Sylla sangu mbaa kol ba waaye la leen ma Madiba wuy jooyle leen ma Seex Madiba sangu mbaa kol ba waaye la leen ma Madiba moo di xawsul wara di xutbu sëriñ ba mooy sëriñam ba mooy Seexul Xadiim moo xawsul wara Seex Madiba doyloo nga tax Seex Mustafaa far ko jébbal muritam ba mu seere jëf ya way way la leen ma Seex Madiba jumaay Tuubaa ja ak ñaqam wala ca jëkk moo di gerteem ay wayla lil ma saaxima di ba jumaa yi Tuuba ja seen dindi si la seen dindi si la seen dindi si la gerteem nga moo ca jiitoo ku siiw la wayla lil ma musa dellu diine cay mbër mi moo ko ay ndam si la ngaarey daa ko seere pësti ba si Mustafa moo ko seere wala leen seexi ma diba Seexuna Jaamo Seexuna ngila mu Seex Bamba amee jaajëf ma nga woon ak maam Thierno naw na Seex Madiba Seexuna Thierno jox ko taawam ba Seex Moustapha Seex Moodu Moustapha Seex Moodu Moustapha jox ko Seex Madiba jërë ngeen jëf تبدنا وخمنا وكلنا وحمدنا ونحمدنا ربنا ويل ويل ويل مخبر ويل ويل سن مديبه yaa ngi way yi la seexi ma di ba tarbiyaat tarxiyaat tarfiyaay mbër def nga koy nit bañ feese ma di ati diina nga jiijil falooyu kelu góor nga seexu madiba naan way piir la waaju man di jébbal gaaram dootu mar yàlla tey gaaye seexi madiba gor siin gor nindi gor siin gor nindi defte seen xol yaa seex ba الوزير سل الساقمة بل سفنا يا دقني يا يكون باهم باي سغنا تسل سيلين يا دي سيخ مدبر من من لول نخينا لك خيدي دل تديني تختي نان ني خير شيخ مدبا عليه الصلاة والسلام sila ngaari suuligi nga may nu jannatu salaam sila ngaare waaw jërë ngeen jëf mu mel ni maa ngi tudd te jégalu yéen soppe waaye bis bi rek bi sëriñ bàyyi ko war a maa am tuuti lu may leeral rek loo xamante ni si nii su leeral ngeen xam ne lii lépp sëñ Tuubaa la li tax mooy soppay Mouhamadou Mara Seck yii dafa am lu ko tax a am lu ko tax a jóg ndax 2003 bobu yakana na ne jamono ji jamono ji mett wona non ci bobu boobu yëngu bi barana lol lool ci yëngu ba ñi doon yëngu yep nit aduna rek la doon yeb mo meedi di bax Ba ndaw la tol ci digi dolem mo serigne Ibrahima dal serigne Abdou jang ñoom yi ñu mënoon def li xalé def ndax kenn ku ne deretam dañu yëngu ci bobu ñu seen deret yëngu ñep ñi nga toppoon ñeneen mooy ñii nag nit adduna yi te boo amoon na ñaari woykat yu siiw yoo xam ne moom nit ñi doon defal ci ay fan su gën ñoom nekk ndaw seen doole yëngu ñuy tekk daana ñun de suñu doole yëngu na bu ñu war a yëngu nañ ko yëngu sëñ Touba ñu nan la ñu yëngoo sëñ Touba ñu ne ñun kat comme fii ay amu fi sëñ Mouhamadou Mara Seck mi ngi fi jànkat sëñ Touba yi kennal ko kon tamit ñan ñun tam nan ko defal ay soppe nit ñi di dem Mbàkke fu ne ñu defa dem ñoom ñu def seen kuréel dajaloo di defar ñaar fukk ñaar fukk ñii dañuy def dañuy def maanaam fan su gëlëb soppay fan su gëlëb Mara Seck ñii la tuddoon ñu ko dajale ak ñaar fukk di ko def ci néeg boo xajut ñu koy génne ci ci ci ëtt boo xajut ñu koy wër keroog man bi ma ci bokk dama tëdd sama place moom Serigne Ba mais moom seen daan eh Baye Fall Mouhamadou Mara Seck baa ngi nii. ma ne ko la xew mu ne dana def fan su gëlëb soppay Serigne Mara ma ne ko bind leen ma daal di yëkk sama ëtt jox li leen bis ne ka tey heure bu amatee. fii ci kër ñoom urée li ñu wax mu jox leen café keroog bi ñu ko dajalee suñu maa fekk ñu nga fekk si këram gii 4000 francs la booba 4000 francs fii nii tey boo ko doon xool mi ngi war a nekk 60 000 wala 40 000 booba 4000 francs yombul ndax boobu ñi ñëpp da doon jàng métier bi ñu ko dajale bu ko yit moom dañ ne ko ñun say say say fant a benn yu la indil addiya ndeysaan yaa ko gore barke Seexu Xaadim boobu mën nga koo lekk ndax yow jamono ku ñëpp xaalis nga lekk ko waaye bi ñu ko yit dañuy ko ba mu yàgg mu sama gars jéem a def ñaan ñu ne ko ñun ban la ko pare mun teel a def neen mu ñu ko nu ñu def mën nañu ko dajale su ma dee daal ñu ne ko sëñ Saliou nekk Serigne Touba la yaa si góor barke Seexu Fadim daal di tudd naa leen ni Moustapha nawetu malu jàddidu ñu def ko drapeau di ko wër si kër yi di ko wër nit ñi ñëw ba mat ñu dem yëpp ko Serigne Saliou keroog bu ñu koy Serigne Saliou Mbacke foofu feesoon na doon del ak nit mais dañu dem leen toog. déglu ma maa taxaw di jàng bi daa di ba mu jeex mu teg ci lam see teg ba pare sëñ Saal dañuy ñëw leen ñu ñëw mu di jege si leen ba fekk si moom mii wax jam ca wax yaakaar naa ne ñëpp xam nan ko kaset baa ngi fi ci njanaaw la ak ñoom si tudd yëpp daane ko tuddee naa la déré malo fa sëy nii waaye lii sëñ Tuubaa na gën a jëf ji bu ngeen ko doxal ëllëg ay malaaka dinañ ko doxal te yaakaar naa kon mi ngi nii seen ñoom ñëpp ñi ay ndaw la te tey jii ñi ngi nii ku si mënu da am ñëpp a ci ne nit ku nee nga ci barke Seexul Xaadim ñu ngi yor seen i métier ñu yor seen i xam-xam yor seen i diplôme lu ñu bëgg a def ci àdduna def ko kon ngàtt ngalaama yàlla yàlla guddoo sa fan barke yi Xaadim daay am mooy waaye sëriñ Ba yooyu loolu mënoo ko séeréer rek du moo si kon yàlla na yàlla fay ndax booba dér yëpp yëngu na te tool nga taxaw def loolu kon yéen ñii ñëpp di soppe yi parce que sëriñ Tuubaa sëriñ si liggéey waaye nañu ko yàlla na ko ma sa kenn yàlla guddal sa fan loo dund doyul man yàlla yàlla fàkk bàyyi sama fan jox ko soo fan barki seen xarit lépp lu nit nit nekk te tuddee ko sëñ Touba dèjà tuuti yow yaa ca seetul sëriñ bi leneen nga cay seet boo ca tuddee sëñ bi ñëpp daw dikk nga def ca leneen sëñ bi dem dootu des dara te mel ni nun taalibe yi nag kenn ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif muy bëgg sëñ Touba gëm ko wóolu ko yaakaar mu mel ne ñiy waxtaanal léeg-léeg dañ ñuy réeral ndax gaa yi amuñu problème mu gëm sëñ Touba xam nan la ñuy gëmee sëñ Touba ak lam la bëgg ak nan la bëgg ku ko ni toppee sëñ bi lool la lool lan am ak problème ñii ndax ñiy joxe fukki dërëm yi ak ñaar fukki yi ak juróom yi ñooy ñooy démarrer escalier bi ba keroog ngay yéeg ca kaw immeuble waaye immeuble moom bu amul escalier ku dul naaw doo yéeg kon soppi yii ñooy escalier yi te escalier nag ku ne damaa bëgg dem ca kaw nit tegal la ko ba pare taxaw ca suuf xam nga ni bëggut a yéeg daa bëgg nga yéeg waaye ku yéeg ba ca kaw del xool ñi ci suuf man nag damay def nii comme la sëñ Abdou Lahad waxan nee na nabiyul mursal moom dootu wàcc ab yonent waaye képp kuy wax dama ne ñu ne ah mursal nga ca ña ngay waxan yàllante woon nga xam ko bay wax lu leen jëriñ tey ak lu leen di jëriñ ëllëg sëriñ Babacar si moom sëñ Alaaji Malick daana wax ni daana wax ni daana yëg ci état sam toog ba yàgg mu ne xaaral ma wàcc ci suuf xool sama gaay yi ñii gaay yi gaayee lañ gaay yi gaay yi mooy ñi nga xam ne mën na noo joxe vingt mille nga jàll ca kaw saal ba ca kaw joxe cinquante mille jàll ca saal ba ca kaw joxe quarante mille sa gaa yi la daan tong ci juróom ñaar fukk nag ba tey maara baas yi tey lañ ko gën a bëgg maara di leen jàngal tey lañ ko gën a bëgg waaye maara trois cent cinquante lay laaj te léegi ñoom bun musaana daayira cent vingt cinq mille la am bëgg caa cant toog ca weer yiwi ci ba tey ñoo ñoo ngi fi mooy xat tout tànk gi Serigne Touba yi bëgg ko rek lan def kon yi bis mu tuta caaxaane lu mat a fonk la ndax ñii fi teew ñoo daan def daayira yi rek gone yu ndaw yi ñoo daan def daayira yi ndax ab daayira boo xam ne dangay ñaan sa yaay ñaar fukk ni ko damay dem daayira tey borom kër mënu ko waaye nag gaa yi kenn dépassé wut sëriñ bi kenn dépassé sëriñ bi ñëpp loo gën a yéeg da ngay gën a doon ab dongaam sëñ Tuubaa loo ko gën a jigéen ci nga koy gën a jox cër kon sëriñ Mbàkke Ba mi ngi sant leen bu baax a baax di sant xaritam yeeg wëlëram yi nga xam ni yàlla dogal na ñoom bi mu nee leen man la soppey maaraay dara jaale sama bis bi këram daal tudde sama bis bi seen bis bi ñuy euh, delloo jukkal maara ci taxawaay bi mu taxaw ci liggéeyal Serigne Touba mu wax ko ay xaritam ak wëlëreem ñoom ñëpp danoo bàyyi seen yitte yedd ji këram heure bu mu leen nee jóg leen ñu jóg soxlaatuñ seen bopp dara ba keroog bisu Serigne Mbacke ba bii di sotti ndax olof Ndiaye nee na koo xamut noo koy def nam la defa tax te ñoom xamuñu Serigne nu koy def. interview bi nu ma doon laajee lépp moom la sëñ ne wax bii léegi. tirise bari na ñuy tirise waaye tirise lamb sa bos joxe te doo ko jaaraat di ko laaj léeg-léeg nga gis gars yi daje ci kuréel boo xam ne benn waay boo xam ne baas boo dem fekk ko fa mu génne cent mille sa njort mën naa ñaaw waaye koo xam ne léeg-léeg lay ñëw léeg-léeg du ñëw joxe day ko te sëñ Tuubaa mii liggéeylu di laaj alal li tax muy laaj alal xam nga lan la alal ci xol la sax fooy def sa alal bu yàggee sa xol bëgg ko te sëñ Bamba xol bi la soxla kon nun taalibe yi joxe gii nu sëñ Tuubaa di joxeloo da koy def ngir nu gën a bëgg a yàlla gën a xam yàlla gën a bëgg yàlla te sëñ bi tamit li may wax gaa yi léeg-léeg ñu bëgg a def yëfi daanukat naan daayira bayre bi sëñ Saali woo ko yóbbu yëf yi léegi daa mel ni taalibe léegi taalibe yi tay gën a nekki taalibe sëñ Touba tay la gën a dox ndax sëñ Blaat milliard la laajan gaa yi ne xamut milliard sëñ Saaliw ni maa ngi fukk yoo xam ne si ni mi si sama kër gii ndax joxe bi daa jiitu laaj bi sëñ Mourtala ñëw laaj 37 milliards kon Bamba jàngi dox ku duxul yaa duxul. jërë ngeen am na solo rek macha allah njiitul sëñ Abibou Seck waaw. waaw kay jërë ngeen jëf macha allah léegi waa soppe yi sëñ Mouhamadou Mara soppe yi ñoom itam def seen dé seen décoré ñoom itam yëg leen waaw sëñ Ousmane mii am na wolofal bu mu def ci sëñ Mara bisimilah mu gaaw tuuti rek. يوسفي فكري بك بغير تواني يا خير ذكر قد جمه خير الكلوم وقمه ليعدى منع من ياسات وهمي أنت سبيلي والأنيس لقد تفايق المقيس بحلمة رئيس مكيسي بالملك jërëjëf sëñ Mara ok jàppil ok jërëjëf xasida yi am na solo masha Allah sëñ la ko tereel nee na bëgg sëñ Tuubaa ndeysaan ey borom Mara Seck yi jox jërëjëf Mbacke jërëjëf yàlla nañu jëlee ngërëmu sëriñ bi bu ko defee loolu xasaayit bi suñ Pape Sock suñ Badara jërëjëf suñ jërëjëf suñ Seex Mbacke jërëjëf yaram suñ Pape Sock yéegal xasida yooyu yaa koy jox suñ Mouhamadou Mara Seck yéegal loolu moom du am kàddu kàddu yëpp maa koy yor mu gaaw jërëjëf suñ Mara nag ma ñaanal nag dama teg sama place ci suba te ab téer amul jot bàyyi lépp bëgg la rek ngir borom Touba waaw dama bàyyi lépp tej place ba parce que Touba parce que nee luma raw dana ko dab ay ay kay kay jere jëf jërëjëf sa jëf ok jëf génne dool bi ok ndey borom Touba jere ngeen jëf ok jërëjëf ok waaw Badar Jabaay jógal yow itam yaay joxe tiise bi nga xam ne moom itam ci la bokk tiise bi ci soppe ya ko jox moom itam tepp dindi jëlal lépp lu baax dañ koy jël lu baax lu ne dañ koy wane waaw foto borom tubaab kay mu gaaw rek Cissé bii nag soppee ko xot dañ ko bëggoon a ñawlu waaye ku xam ne tabaski gi mu xaw a xat waaw tabaski gi xaw a xat jërë ngeen jëf incha allah waaw suñu seexu naa xëcc jërëjëf waaw sëñ Sadda yaay joxe photo su borom Tuubaa xam naa sax lii photo borom Tuubaa bi naa ci wax dara sëñ Mouhamadou Mara mii néegam amul photo sëñ Tuubaa mënta gis photo sëñ Tuubaa moo waral loolu ngir kennal kum ko kennal rek kum ko gis sax day sëgg waaye lii moom faaw nga xool ko te gis ko waaw su ma sañoon bu dugg ci saal ba xam naa du fa mën a nekk nag waaye ah, ah sey ba ngeen jàpp ci bu ngeen moytu kilifa fa ñëwee yóbbu yóbbu ko de. ba ndox amul la daal di bënn forage ñëpp di naan di sangu moo di fograas yokk jumaa ji def fi daaray kaamil kaa nga ki fóore mbàkke moo leen jommal daara juree ja med Madiyaana cornice ba yit moko fa def li wóor na ma marché Ocass moko tabax ci jamono mouride yi séré nañ na moy donay khadim deggok deggal motax ñu bon ña bañ ko lu ma sa wax sa su jotté mu def ko sante lo wax ba akidina kawe مبابا تبسي وغنارا بس يحكي أكديناك مبابا تبسي بغنارا xay may naari ganaara gërëm la leen di bu baax ñii naa ka baax ñee naa ka mujj ñee naa walaay ma lum fa ganaara ndax moom añaanul te aayul siisu nit ku ñëw mu baaxal mu mel ni Cheikh fa ganaara ku ñëw mu baaxal la nga ku gis ku gis ku ko mu xam ni kii ab kemam du fii du ganaara tey bir leen ne ku doon yow tey di yow tabatay Ya diyo yow kenn du yow du min ashabal hana wa jaanibaati nexami jërëjëf jërëjëf sëñ Sanda di nga ñëw waaye lii sëriñ ba lañ ko bëgg jox waaye sëñ Gora Seck Mara koy jox ba sëñ Gora téyel nii yaa koy jox sëriñ Ba bu noppee rek sëñ Gora Mbaye daal di yëpp bégal na nag waaw bisimilah teppit waaw wéeraatal photo bi nii moytul gaa yi yóbbu ko nag bu may ñibbi doo ko bàyyi bi waaw kay Ba defal nii ni jubanti bu ñëw ci ñun Gora waay Gora waay sëriñ sëñ Modou Moustapha moom sëñ Modou Moustapha rek la bëgg ndeysaan am na solo waa góor ndax wax nañ ni moom mii moo njëkk a sos soppi sëñ Mouhamadou Mara Seck bi moom sëriñ mii moo ko njëkk sos kon nag lii lii jomb la waaw sëñ Gora waaw dañu bëgg sëñ Gora jot ci lay tànn bi mu gàtt rek bisimilah yaa koy wax. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginaaw bi ñu sant yàlla dul ci jant bi sant sëriñ Tuubaa baax a baax di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal fi lool ba naal yi mag ñu baax ñi fi nekkoon naaloon ko ma àggale ko ni mu ko soobee te naan ko moom di ñaanal sëriñam di Moodu Mbenda Fall xalifa Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal lool ba mu àggale yéene seex ñuy sant bu baax baax baax ci kaddu yi nga xamni dañ ko jël muy sante muy kaddu yu cant rek muy sante soppe bu baaxa baax di leen ñaanal seen jëf ji yalla sëñ Tuubaa nangu wax lii sëñ Tuubaa rek koor ñom nak nag japp dembu démb Mara ba dara dul dara ba tey agsi fi kon ñom li ñuy wax deugul ci ñom kon yalla leen sëñ Tuubaa fay sargal gi ni sargal sëriñ Mara man aduna bepp amna seigne touba rek tax mu ñu def ko kon yalla na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla aar waaye am ci mbekté lol muy jëm ji di seigne Mara tamay magam tam jox ma cër bo xani ni mat na sëkk cër bo xani ne bu suñu waajur nekkal mom la koy jox. lam doon defal sama waajur rek ba ma gisee defal nako ba ma sëkk kon no ngi ñaan ci doli seigne touba yalla ko seigne touba ar yalla ko seigne touba sam yalla ko seigne touba gëna jappalé jàppale. noo ngi ñaan fepp mu bëgg ak day yalla ko seigne touba agal sant naa bu baax ci moom sama xol seet na ci moom lii lépp mën ngeen ko defal ak bokk yëpp di sant sëñ Abdou mi nga xam ne mooy sama rek moo daje fi moom ak sëñ Pape mi bokk yëpp sant naan baax te xam ne sant moom cant rek la mën a doon suñ fa doon wax ba subaat cant rek laay def sama xol seet na guy ñu ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Gora sëñ Mara mën ngaa dem toog bu ko defee nu wàcc gamaat bi nag mooy sëñ Gora Mbaye ñi mu àndal